salaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi bu ngeen ñu gisee ñu toog fii ci xurum bu tedd bi di xurumu borom parasol bi nga xamante ni du ragal tàngaay junj la Cheikh Seydi si Hadji Malick Sy tabaarakallahu uuf doomam ju tedd jooju si alxaaji Mansour Bal Qawmi lan moo xew nag mooy fondation of America bi nga xamante ni Euh, sëriñ Sidi Ahmed si ibnu sëriñ euh, Habib si bu Cheikh Seydi El Hadji Malick si moo koy def fële ca Amérique tabaarakallahu di am nag le 15 le 16 ak le 17 tabaarakallahu képp koo xamante ni na Cheikhuna Ahmed Tidiane Chérif nga képp kuy taalibe Cheikh Seydi El Hadji Malick si mu dajale la nag delloo la fa mag ñi daan delloo mag ñi delloo la ci xadara bi delloo la ci naasir il xaq bil xaq tabaarakallahu ñu toog nag ak ki nga xamante ni mooy Mouhamed Mbaye Alhaji Mansour tabaarakallahu ñu bëgg koo bàyyee kaddu gi Mouhamed maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar Mbengue Diop di la nuyu di nuyu mboolem àdduna bi ñu seetaan ci suñu tele bu mag bi nga xam ne mooy Maam Ndox TV ziyaare leen ndokkeel leen mu mel ni nag Mbengue dafa am luy waaj a xew lii waaj a xew way juróom wu tedd wi tëdd ci ginnaaw muy maam Cheikh Hadji Mouhamadul Habib nga xam ne mooy caatu Cheikh Seydul Hadji Malick Mbengue Serigne Habib maa ngi lay wax lu mu def lu yéeme lu kenn deful mooy yëkkati alal jox ay magam hadiya yëkkati ay oto jox ko ay magam hadiya waaye yëkkati ruuxam jox ko ay magam hadiya maam Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib moo waxoon ni yaa qaabidal arwaaxi qasir umri wa tawil umrahu wansuruhu fii sirin wa fii wa fii ijahaar yi yàlla maa ngi lay ñaan yow mi ñëpp suñuy ruux téye ko yàlla na nga wàññi samay fan man sëriñ Habib nga yokkal ko sama mag ju ñuy wax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh boo ko ko yokkalee bu ko bàyyee waaye wansuruhu yàlla na nga ko dimbali fii sirin wa fii ijahaar yi ci lu nëbb ak ci lu feeñ ñu ni ko lu tax mu ni man Habib doomu Cheikh Seydou Hadj Mag laa mel naa ni ma war a mel Seydou Hadj Mag defar na ma baax naa waaye dund gi yéene naa ko sama mag Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh kon yàlla wàññil samay fan nga yokkal ko sama mag ju tedd jooju gannaaw ba Serigne Habib yëkkatee oto jox Serigne Babacar magam hadiya boole ci ay millions noonu la defal Cheikh Hadj Mansour noon la defal Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh ba jël ci ay fanam wàññi ko jox Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh kooku nag tey lim doon def ci kër gi moom maam Cheikh Hadj Mahamadul Habib tey doomam yu baax yaa ngi ko wuutu di ko def ni tey moo ne ca Amérique mais nga Amérique boo fa demee état yi dañu bari waaye état yëpp Serigne Sidi Ahmed si bu Cheikh Hadj Mouhamadoul Habib maa nga tey ca Amérique wuutu ay magam muy xalifa général Tijaan Serigne Babacar Sy Mansour wuutu njabootu Cheikh Sidi Hadj Mag ñi nekk ca Amérique lépp lu mu war a taxaw ci njabootu Cheikh Sidi Hadj Mag mu taxaw ko méng Serigne Sidi Ahmed ma ngay jàngaleel boppam toog ca daara ja ko maamam daan defee di jàngaleel boppam américain yi ma ngay boppam taalibe yi xamal leen luy diine ji xamal leen luy tariqa bi waaye xamal leen kanay maam Cheikh Sidi Hadj Malick di leen may werde di leen xëcc pour jëmale leen ci Cheikh kër Cheikh Sidi Hadj Malick waaye nag méngoo kooku nag nee nañu góor lu mu baax baax am na keneen ku baax ku ne ci am moom la tubaab bi wax derrière chaque grand homme y a une grande dame soxnaam su tedd soo su wax soxna ma jigéen sekk nga xam ni moom la ñuy wax madame si ma nga ca Amérique di yaay daara ji fépp foo xam ni sëriñ bi jote na fa soxna ma jigéen ànd fa ak moom fépp fu mu jotewul soxna ma jigéen wuutu ko fa ànd ko njaboot gi ba it faa tey li ñu yëkkati ci ay alal jox ko ci indi ko jumaa ji kenn xamul nu ñu toll it faa googu nag ñooy wootee incha allahu taala la 15 décembre le 16 le 17 daañu def xaddatul jumaa daañu def ay waxtaan ak ay conférence sëriñ bi dana ko présidel boppam ñu waxtaane waat diine ji ak tarixa bi ak njabootu Cheikh Seydi Hadj Mag gi sëriñ Sidi Ahmed daal bijjiwaat xolu taalibe yi joxaat leen maamam Cheikh Seydul Hadji Malick radiyallahu taala anu ñu ñaan yàlla yàlla na may ñu ñu ci bis ñu ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla may ci darajee rasulullah sallallahu kon taalibe fu waay mën a ne ci àdduna bi na waaj 15 17 nga incha allahu taala ci kanamu Serigne Sidi Ahmed ci kanamu soxnaam su teddu so soxna ma jigéen ànd ko ak waa fa yëpp ñaan yàlla yàlla na yàlla mottali jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu waa fa dañuy wax ni képp ku nekk Amérique tan te namm kër Cheikh Seydil Hadji Malick si demal nga seeti Serigne Sidi Ahmed si ibnu Cheikh El Hadji Habib tabarakallahu dégg ko njàngale ma Cheikh Seydil Hadji Malick si doon jàngale ci Tiwaawan moom la Serigne Sidi Ahmed di jàngale ca Amérique képp ku miin Amérique nga am fa mbokk mbaa nga am fa yaay mbaa nga am fa papa dégg nga ca zéwe Seydil Hadji ba liggéey bu rëy ba fa Serigne Sidi Ahmed di dem kon mbokk yi le 15 le 16 ak le 17 inchaa allahu képp koo xamante ni taalibe Cheikh El nga wala taalibe Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif ñu ngi woo fële ca Amérique ñi nga xamante mooy fondation euh, Euh, of America ñu ngi lay woo foofu allahu rabi ñu def ko ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour man ak sama xarit incha allahu rabi fas yéen yéene di daagu ca mbeddi Amérique yi ànd koog Serigne bi bu soobee yàlla alxaaji mbéeg jëm ak maam ndox si bi jërë ngeen